jëf ju doy waar naqar ak tiis moom la Touba Alieu ci arrêt bi gontoo ci timis gile benn ndaw bu wuyoo turu Modou saw am lu tollook ñaar fukki at ak ñett juddi ci atum 1998 ca Ndakaaru ca Géejawaay moom lañu fekk am néewam foofe ca Touba Alieu ci arrêt bi jamonooy juróom-ñetti waxtu ci ngoon gi maanaam ginnaaw timis buñ sukkandikoo ci yenn xibaar yi nga xam ne ni jot naa feeñ ci mbir moomile moom kat dañoo fekk ñu jam ko paaka ci wetuk ndeyjoor gi ginnaaw loolu nag ci la deret ju bëri baa di bàyyeekoo ci moom li sabab ak faatoom jëf ju ñaaw ji kan moo ko def ndax ab agresseur la wala bokkum doon xeexal jamono yi xamaguñ ci dara ndax moom muy kët ab néewam doon ko fekk mu tëdd foofu buñ sukkandikoo ba tey ci ñenn ñi nga xam ne ni jot nañu teewe mbir mi ci la ñu daal di wooye sapeur pompier ak gendarmerie ñu ñëw ngir def constat yi néewub Modou Sow moomu war am ñaar fukki at ak juróom jël nañ ko ba yóbbu ko ci morgue hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba ngir def autopsie bi jamono yi nag jëf ji nga xam ne ni xamagun kan moo ko def ak la tax mu def ko ñii di waa gendarmerie beleel ubbi nañ ci ab enquête buñ sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñooñu nga xam ne ñoo dëkk foofu ci àll yi ci arrêt bi lii kat guléet mu fiy am donte sax léeg ay jàppante yu ndaw daana am diggante ñi nga xam ne ni ñoo nekk foofu muy foofu ci arrêt bi rim yi bàyyeekoo marché ocas foofu la ñuy déparé ak yenn ci sareeti mbaam yi léeg-léeg jàppante yooyu daana fa am waaye nag faat bakkan guléet ma donte mbir mi fi mu amee soriwul dara poste de contrôle bu gendarmerie bu Touba Belel ñi nga xam ne ni ñoo di askan wi dëkk ci Alieu rawatina ñoom ñi nga xam ne ni nag ñoo féete foofee ca arrêt ba ñu ngi sàkku nag ñu yokkal leen kaaraange gi ba yu mel nii dootul mën a am lu ci mën a am nag néew Modou saw moom nga xam ne dañ koo fekk foofee ca arrêt ba mu faatu war a am ñaar fukki at ak ñett dëkk ci Touba Guédé gendarmerie ubbi na ci ab enquête ba xam kan ak kan moo ci laalee lu ci mën a am dinañ leen ko toppal ba xam fan la wànnet di mujj ak